Mhm. mais imam est-ce que violence tamit parce que euh, opposition Sénégal dafa mel ni dañoo natt seen bopp waaw ah. li ñu nattee seen bopp mooy leer na leen depuis le 8 mars. Mhm. Euh, événement mars yi fi xewoon leer na leen ne fu mu toll nii bu ñu woowee nit ñi génn leen ci mbedd bi. nit ñi dañuy génn fekk si leen. Mhm. looloo daloon Ousmane Sonko ba mu ne génn nit ñi dañoo génn si. looloo dal Barthélemy Diaz barki euh, démb. Mhm. ba mu ne nit ñi génn leen nit ñi dañoo génn. ñu natt seen dooleel noonu ba tax lépp lu xew rek ñu bëgg génne nit ñi ci mbedd bi euh, ci même. avalanche bi ci la Macky Sall addu démb foofu ca Paris ne munuñ koo xoqatal parce que yi ñuy def noonu moom jàppee na ne dañ koy xoqatal mu wax ne moom ba dara newutee ci loxoom sax munuñ koo xoqatal waxumalaak ba léegi lépp nekk ci ay loxoom mhm. mu ne kon ñii daal yi ñuy def di wàccee nit ñi ci mbedd beeg yooyu noonu moom moom ferejewu ko ñeente daal moom waaw waaw xam nga loolu man bi ma ko déggee man dama rus xam nga lu tax ma ruus. Uh-huh. Macky la tey li ñuy xaar ci moom. ak uh-huh. fi situation réew mi toll. jàpp naa ni du kàddu yooyu la xaar ci moom. Uh-huh. Macky Sall kenn amul intention xoqatal ko. man loolu laa gëm. mais yi dañ koy jéem a xoqatal de ndax mon frère parce que li may wax dafa sérieux dañuy wax ci président de muy ab institution. parce que dama gis gars yi ni ñuy waxee parfois dañ koy insister inciter waxatuñ ah. sax président Macky Sall léegi Macky Sall la ñuy wax. waaw mais euh, loolu loolu dinaa ci yow. dama la bëgg a wax man def lii bu bañee lii lii de am. loolu yooyu noonu laa la bëgg a wax ni man. Hmm. cautionné wu ma cautionné wu lépp luy injustice ak fu mu mën a jóge hmm. moo xam dafa jóge ci opposant wala dafa jóge ci pouvoir dafa fekk ne nag olof olof nee na ku ku boot bukki xaj baw la hmm. loolu olof wax Macky Sall moo boot bukki xaj di ko baw réew mi moo ko yor kon moom la ñu mën a waxal mënuñoo wax ak ñeneen Macky Sall gëw ma ni benn sénégalais am na fitu taxaw di ko xoqatal mënul nekk parce que mënoo yor police yor gendarmerie. Mhm. yor réew mi ñu lay xoqatal réew mi ñun ñoo ko dul nangu sax bu ñu gisoon kenn di ko xoqatal. Mhm. ñun ñooy njëkk taxaw ni ko amu leen droit di ko xoqatal mais bu ñu waxantee dëgg Macky Sall mooy xoqatal nit ñi mon frère bu ñu waxantee dëgg. nañ wax dëgg rek bala ñuy faatu dee dem safara fa ñoon bëgguma dem safara. Mhm. moo tax damay wax dëgg. dëgg la billaahi Macky Sall lay xoqatal nit ñi. nu mu leen di xoqatale. Macky Sall li muy xoqatalee nit ñi mooy. Hmm. bari nañu bokk ci camp hmm. taxaw wax lu ni weñ dumburu saw lu mu wax jaasi laa yor. Hmm. moo ko wax wala waxuma ko wax man du ma fen rus naa fen. mu ni jaasi laa yor ku wax man dinaa la ko nandal. mu ngi toog këram. kon koy ñoom ñooy xoqatal nit ñi. mus ngaa gis opposition oppos opposition fi ku fi yor arme fii amu fi. gars yi bu ñuy marche wala ñu lu ñu mën def ay loxoy kese la ñu yor. Mhm. kon discours boobu man gëw ma ni discours bu bu sénégalais soxla la tey. xam nga mhm. tey lan la ñuy xaar ci Macky Sall. Mhm. mooy rupture bi mu diggoon réew mi bonne gouvernance bi mu doon wax. avant muy jël réew mi fan la ci toll. réew mi kenn amu fi intention déstabiliser réew mi man loolu laa gëm. mën ngaa jël nag say nit gëm te Sénégal yi gëmuñu loolu Sénégal yi kenn mun leen a gëmloo ni opposition bi dañoo bëgg a réew mi. Mm-hmm. réew mi képp ku ñu xam danga ko bëgg a nit ñi ñooy jóg taxaw def ak yow face mais lii déstabiliser réew mi ak lii xoqatal nit ñi mooy institution yi ñëpp bokk kenn waru ko manipuler. lii la groupe lii la jullit ñi ak gor ñi war a wax leneen li ñuy wax li yi caaxaan la Macky Sall boo tëddee nelawal fii kenn du la fi xoqatal. <laughs> yow yaa yor pouvoir yëpp téye ko sa loxo. <laughs> yow yaa war a xam ni réew mi dañ la ko jox ci ngor nga delloowaat ko ci ngor. <laughs> boo paree nga toog ci réew mi dara du fi yëngu. Ousmane ko wax na ko nee na ko boo paree nga dem Mermoz nga toog fa. Macky Sall fii kenn bañu ko fi kenn du ennemi mais Macky Sall moo ñu taxaw ni moom du bokk ñaari mandat la am ñu dem ba ci biir mu naan wii wala non kon kay bu xoqatal di am moom moo ñuy xoqatal. Hmm. kon wax jooju mën bugguma cee sori mais lii dëgg mooy ñu war koo wax mooy Sénégal réew la moo xam ni am na particularité te particularité boobu dañ ko war a sauvegarder mooy amuñu problème mu ethnie. Mm-hmm. amuñu problème mu religion encore une fois. Mm-hmm. Sénégal problème mu problème mu ah, nit ñu bëgg réew mi lañ am. Mm-hmm. te Sénégalais yi kenn mënu wax ni bëgg nañ bëgguñu réew mi man damaa jàpp ni ñi ñu jiite. léeg-léeg seen bëggum réew mi man dama ci dama ciy dute man. Oh. waaw parce que di nga gis yoo xam ni yoo xam ni walla yenn taxawaay yoo xam ni day day dute ci ni est-ce ñii réew mi am na lu mu leen jaral. yu mel ni yoon. mais comme yu mel ni yi fi am nii rek ki démb. Mm-hmm. ñu jëm ci ay élection nga jël liste ya nga xam ne nii. Mm-hmm. opposition bi ñëpp ca lañ bokk. nga mbirum nga xëy. ni leen bo mënu mënu ñoo bokk. mbirum liste mais loolu loolu ku bëgg am réew doo ko def. Mhm. parce que dëkk bu mel ni maatam tey. bu ñu fa demee ay élection Macky Sall kese dem fa. Mhm. mais loolu loolu loolu kon loolu tuddeetul élection. Mhm. nañ waxante dëgg. nañ waxante dëgg maanaam nañu siwaat xel yi gëm ni réew mi ñun ñoo ko bokk. réew mi dara du fi yëngatu. réew mi kenn amu fi man de bañuma kenn. lépp lu ma yéene sama bopp. billaahi moom laa yéene Macky yéene ko. képp kuy ab sénégalais waaye nag buñ toogee di layam layami di naxante ba Sénégal dugg ci guuta kenn du ko ci génne ñii wax naan réew mi du tàkk ñooñu dañoo xamuñu histoire. Hmm. Bagdad ci Abdou Khadir Jaylaani fa la tëdd na mu ci guerre civile. Hmm. Syrie ay saxaaba yu àndoon ak bi ñoo fa tàkk na tey yaa ngi dégg. Hmm. gii ñu de tàkk na. Sénégal réew mu neex a gérer la. à condition. ñu respecté suñu institution yi. Mhm. kenn ku ci ne li nga moom ñu jox la ko. Mhm. leneen luñ fi wax. takki mhm. rajo di wax lu tax jàmm am. la paix c' est pas un mot mon frère c' est une mode de vie. bu ñu naxante jàmm du lu ñuy wax nii rek. lu ñuy dund la. te tey jàmmi réew mi ci loxo Macky Sall la nekk bu ñu naxante jàmmi réew mi ci loxo Macky Sall la nekk parce que moom moo moom lañ dénk réew mi. mais imam yow mbirum liste yi. da nga gis ne dafa am njuuj njaaj bu ci nekk ndax euh, damay dégg ñu ne mhm. liste bennoo bokk yaakaar yi yëpp lañ validé waaw liste yeewi askan wi mhm. yi am na yu ñu téye waaw liste Bougane Gueye mhm. moom euh, mairie Dakar euh, gëm sa bopp moom bokkatul ban jàngat ngay am ci loolu ak danga gis ne dafa am ñu ñuy jaay doole wala ci xoqatal gi lañ nekk ba tey xoqatal gi ñuy wax naan moom xoqatal gi muy jiñ nit ñi moom mooy xoqatal nit ñi xoqatal mënul weesu mais liste bu normal xam nga xoqatal mm-hmm. exemple laay jox man ay fee laay wax musta mm-hmm. giraas yi bi ne Kédougou mm-hmm. giraas yi ñëpp xam nañ nangu nañ ni ko am expérience la moom mooy maire sortant bi ko ku ko gën a xam élection mu dem loo xam ne loi bi moo ko may pour mu dem ci préfecture bi di vérifier ay listam ñu xoolal ñu tiim la lacrymogène di ko dóor. Hmm. mais loolu mooy xoqatal xoqatal opposition mënu ko def yaa ngi dégg. Hmm. maanaam nañ teg mbir mi ci ay règles du jeu. kenn hmm. ku ci ne li nga moom li sa àq ñu jox la ko. leneen luñ fi def lu dul loolu ñi yee fitna mooy ñi tere nit ñi bokk ñooñu ñooy ñooy yekkatu fitna yi. mais ba ba ci list bu normal. yeewi mais liste bu normalul xoola liste bu normalul amu fi xam nga lu tax mm-hmm. dégg nga cour d'appel li ñu wax te ay magistrat lañ préfet yi la nit ñi wóolootul loolu mooy dëkk du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ni seen taxawaay nit ñi dolatul seen mooy crise de confiance bi ma la doon wax mm-hmm. te administration bu ñu demee ba ba ba ñàkk seen crédibilité ba nit ñi wóolootuñ leen tey lu toll ni ay préfet jël décision cour d'appel jël beneen décision mënta ñàkk ñu def taxaw seetlu ñi nga xam ni dañoo nekk ay politique ba pare rax ci biir administration ñu soppi ñu génne leen ci mhm. loolu buñ ko deful duñ am solution parce que man tooguma fi pour di wax pour kenn kontaan lii dëgg mooy préfet yi nga xam ni dañoo jàpp ni Macky Sall lañ fi nekkal ci administration bi nañ leen ci génne dañ leen a waroon a sanctionné mhm. parce que cour d'appel nee na nee na nee na leen li ngeen def baaxul mais waruñoo yem ci bàyyi leen noonu dañ leen war a sanctionné mhm. pour ëllëg kenn du am fitu def ko mon frère nañu waxante dëgg parce que gis nga dëgg Cheikh El Hadj sama sëriñ moo ko daan wax du tere du tee kenn dund te nit sa destin bu doon wax dëgg rek mooy tax nit faatu kon yonent bi du gudd fan. te Sénégal nag malheureusement feebar bi ñu dal léegi te nga xam bi mu duggee ci réew mi yàggul mooy naxante rek. Hmm. mag ñi dañ daan waxante dëgg ah. Hmm. mag ñi seen waxtaan da daan gaaw. parce que ku nekkul ci dëgg ñu joxañ la ni la nekkul ci dëgg. waaw mu fi mu féete bu ko defee tey ñi nekkul ci dëgg ñëpp xam nañ ko man moo tax maa ngi saluer décision bi nga xam ne cour d'appel jël na ko di leen ci encourager. am na ñuy wax sax piège la man ma ni piège la parce que ñoom it ñu responsable lañ. Mhm. gëm nañ ni buñ gisee ni réew mi day basculer te buñ yeewi askan wi boo leen teree bokk mooy élection du fi am. Mhm. ku la gëm loo ni yow mën ngaa jël di si yi rejeté ko nga dem ci ay élection yu apaisé kooku moom mooy sa noon Macky Sall soyez les bienvenus fii kenn du la fi xoqatal yow bu xoqatal dem yow yaay xoqatal nit ñi parce que yow yaa bañ nit ñi bokk te yow dañ laa dañ la Macky Sall ñu desee tuñ ko dara moo freer hmm. Macky ñun ñoo ko def ministre de l'intérieur réew mee ko ko def réew mee ko def premier ministre def ko président de la république ñu lan lañ ko deseel réew mi deseelatu ko dara bu deseel di am Macky moo deseel réew mi li mu deseel réew mi nag mooy mu joxe réew mi ci jàmm bu dee dafa am candidat boo xam ne ni wóolu na ko mu samp ko moom mënatu a bokk bu fekkee amul candidat yaa ngi dégg. Mhm. ñu mu organiser ay élections yu légal ku sénégalais yi fal ñu xam ni moom la.